philosophie et chef de département de philosophie ca université Cheikh Anta Diop de Dakar damay bamtu ci suñu kàllaama wolof maanaam tënk ko lii sama collègue bi wax léegi ci français mooy maanaam suñ kulef suñ kuréel gi biñ tuddee collectif des universitaires pour la démocratie dafa am lum seetlu te mën na ni loolu Sénégal yëpp seetlu nañ ko mooy gouvernement bi fi ne ak ki ko jiite ci njuuj njaañ lañ nekk ak waa réew mi buñ fàttali ko président de la république wax na ni bàyyi na njuuj njaañ mais sénégalais yëpp yéen journalistes yi xam ngeen ko sénégalais lambda bu ne xam na ni génnul ci njuuj njaañ moo ki ñoñom ba tax na ba conseil constitutionnel maanaam sart ndey ñi nga xamante ni ñooy seetlu seetu charte ndayum réew mi jëlee décision ni ko li nga def nii ci dàq élection yi mënul nekk lu leer la ko wax da ko ni mënul nekk li mën a nekkee mooy processus bi dañ ko war a continuer dañ lay delloo sa cër nga jàppaat dat tu élection yi mais li ñu seetlu booba léegi Macky Sall la président ak i ñoñam nekkuñu ci yoonu jàpp dat bu leer te li koy firndeel mooy woote bi mu woote woon ci bis yee ñu weesu ca jam ñaajo nii day woote dialogue national dialogue boo xamante ni ñun ñëpp ay tappale lañ ko jàppe ak i njuuj njaaj ndaxte ñi ngay dialogue ñi nga xamante ni ñi ci war na dem maanaam candidat yi kenn waruñu ci a jiitu te conseil constitutionnel fukki candidat ak juróom-ñeent la retenir ci fukki candidat yooyu ak juróom-ñeent juróom fukk ak juróom ñaar yi nunguun caa dem parce que ñoom aussi dañoo jàpp ni ay njuñ jaañ xëy na ñoom dañuy politique am nañ ci droit mais ñun population yi aussi ak ñun universitaires yi loolu lañ constaté que ni lii amulu bopp amulub génn ci maanaam ay njuñ njaaj comme ni ñu ko waxee ni bànn ko bàyyiwu ko ci loolu la nekk ba tardeel suñu élection yi te nekkul benn yoon ci benn décision wala ci yoon wu tegu pour ñu def élection yi ba tax na collectif universitaire yi li ñu jàpp mooy conseil constitutionnel mi nga xamante ni dañ di woy ay sage tur woowu dàkkantalu ni ko ci ak nen ndax président foofu ci jamñaajo wax na ni moom rek moo mën a jël décision bi yoon waxul loolu de moom ba mu njëkkee woote ci élection yi la yoon génn décision ci élection yi conseil constitutionnel bu ko delloo da ko doon sargale bëgg leen ko sorti bu rafet mais liñ constaté moom nekkul ci loolu ba tax na dañuy demander conseil constitutionnel mu jàpp date ñu organe élection yi parce que ñun ñëpp xam na ñii nekkuñu ci yoonu organiser élection yi ni ko Sénégalais yi bëgg parce que buñ seetloo depuis 1973 ba léegi saa yu élection war a am dañ koy def teg ko ci yoon mooy rendez-vous national boo xamante ni population sénégalaise ñooy choisir ku leen neex musul ñàkk coow nag mais bu leen ko seetloo sax da daan am genre carnaval la daan doon fête pour tout le pays mën ngeen a fàttaliku ku mel ni ndam si yàlla sa Iba Der Thiam ba mu daan fàq xobi garab yi fu jaar nit ñi di ko reetaan ndam si yàlla si mbay ñaa PLP donc moment la woon bu important ci suñu viwu dëkk tey ji ñi fi ne jalgati nañ loolu ba tax na CUD li mu jàpp mooy e yaakaar nañ Sénégalais yëpp loolu lañ jàpp mooy élection yi dañ ko war a organiser parce que ñu ñëpp xam nañ ni administration sénégalaise gàcce nga la bu bëggee organiser élection yi ba duñ génn 2 avril parce que waruñu génn 2 avril ñu am président bu bees mën na ne volonté bi moo fi nekkul ak bëgg koo def loolu mooy taxawaayu discute ci li laalu ci élection yi que ñu bañ a génn ci date bi bañ a interrompre processus bi parce que ñoom ci seen conclusion yooyu seen dialogue boobu ñu mën a tuddee ab baare yogo wax nañ ci wax yu garaaw mooy maanaam laalaat liste yi laalaat liste yi ni ma leen ko mën a misaale man jullit laa ci ci suñ communauté laay jële exemple mu ngi mel ni jullit àdduna bi yëpp réunir ni julli farata yi dañ koy wàññi wala yokk ko mënul ne dañuy génn ci lislam bi rek waaye mënul ne constitution bi aussi du conseil constitutionnel du président du kenn mën a laal liste bi parce que conseil constitutionnel dafa am ñu ñuy wax ay compétence limitée dafa am la aussi moom itam yoon na koo kii xëy na moo moo moo moo moo nekk ci kaw yëfi yi mais moom aussi yoon ko jiitu et yoon population bi moo ko jiitu ci kaw loolu mënu ko laal yokk ci nit conseil constitutionnel mënu ko beneen constitution kay bu ñu tëggaat woote waat Sénégal ñu defaat référendum tëggaat beneen constitution ci lañ mën a changé lii nga xamante ni mooy yokk la si wala wàññi ko mais ñoom mënuñu ko yokk mënuñu ko wàññi ba tax na foofu aussi wax nañ lu nekkul ci yooyu lañ sukkandiku daal que ni muy ñun universitaires yi parce que pétition bi ñu dugal dem ñaar téeméeri nit ak ñaar fukk ak ñeent signé nañ ko te bari na ñoo xam ne nii ci ginnaaw bëgg nañ ko si te si wuñ ko. suñu détermination tey la gën a taxaw parce que suñu réew mi lañ am te gis ngeen li fi xew chaque jour day gën a ñaaw et li ci gën a ñaaw tey ji gis nga li ñu yeewoo tey ji agression seen naatango boobu may mën a ndiir fay ñu agressé ko ñoo ngi koy naqaru ba fa naqarlu yem te yii yëpp lii moo ko waral moo tax ñu taxaw ne nag réew mi il faut que politiciens yi à commencer ki jiitu ci ñoom ba léegi nii parce que léegi nag mooy président muy Macky mu xam ni réew mi moomu ko doonuwul ko ci ndey doonuwul ko ci baay ni ko ko joxe woon nañ ko delloo ci njëkk ak teranga moom nee na doyal na sëkk yaa xayti ñun aussi doyal nañ sëkk donc nanu jox suñu réew ci jàmm Sénégal yi fal ku ñu war a fal li ma mënta dégg mooy ñu naan kii war na mën a nekk président ak kii warul mën a nekk président population bi ñooy décider am na liste bu taxaw nañ bàyyi ñooñu dem élection moo tax daal position mooy ñu dem élection ci anam bi ko conseil constitutionnel tënkee comme président nungu la jël date bu leer na conseil constitutionnel jël date ñaareelu ponk bi mooy toujours seen baara yogoo boobu loi d'amnistie bi loolu moom parce que ñun aussi suñu prérogative la suñu rôle la parce que ay neneen ay borom xam-xam la te ay borom xam-xam la sax ñoo ngi sant yàlla du càgg di ñoo ko wax mais xëy na suñu jaar-jaar moo nu may loolu parce que réew mi ñuy jiite réew mi ak ñi nekk ci opposition beeg yëpp ku ci nekk fa nga nekk ñoo la jàngal suñ suñu naatangoo moo la jàngal bu dul Sénégal di ci bitim réew ba tax nag yaakaar nañ am na lu ñu xam loo xamante ni xam-xamu baa ngi fay bu dee professeur d'université man nga yor xam bi doo wax dëgg gi man nga yor xam-xam bi doo bañ wax doo doo ñemee wax dëgg gi wala ndax i intérêt mais koy wax dëgg rek xam ni li ñu bëgg a teg ci loi bi mooy jaaduwul parce que réew dëgg moo ko sos te liñ bëgg nii nëf na nës na xal du sotti parce que yéen ñëpp mbir leen na ni bañ commencé libérer xale yi ba léegi témoignage yi maanaam xale yi ni leen doon def prison ñun jàpp ak ak magi jëm aussi di leen toroxal ñenn ñu gaañ lañ ci am ci ay laago yoo xam ne ak lu ëpp juróom-benn fukk nit gaañu ci ba yëf yi amee ba léegi ñu bëgg a xëy xëy falaa falaa ko ni dañ koy fàtte loolu day tax réew mi jàmm du fi am nañ ci boole agression euh, euh, bi bi xew ak may collègue Maïmouna Ndour Faye ndax loolu dañ koy setal dañ ko ciy boole pour di euh, wax leen daal ni leen loi boobu loi bu ni garaawe amul te nag war nañ ko def demande social ñoom buñ ko jàllalee war nañu fex ba ñun sénégal yi bu ñuy dem campagne candidat yi prononcé wu ci ñu xam ñi nga xamante ni dañoo d'accord pour ñu nëf nëfasal ko ak ñi nga xam ne d'accord ñu pour ñu nëf nëfasal ko suñ décision loolu lu ci war a am sol la parce que lii warul jàll bu jàllee Sénégal impunité dafay dëkk parce que gouvernement bu fi toog di nga def lu la neex salfaañe luwaay nappaaje nit ñi toroxal nit ñi xawi seen sutura nit ñi bala ngay dem ni naa wote ab luwaa jaarale ci lu ma neex mu naax saay ba tax na loolu tam collectif des universitaires pour la démocratie nee na loi boobu waruñu ko nungu kenn waru ko wote parce que dina nasaxaayal suñu Sénégal ci lu bari parce que Sénégal jàmm lañ xaw ñun ñëpp nit ku ne bi nga déggee témoignage yi kii am nga lu la nax parce que yaakaar nañu Sénégal loolu mën fi ne nit ñi torture yi façon torture yi yaakaar na ni Sénégal mënul ne ab Sénégal du jàpp moroom Sénégal du ko def yenn donc bu ñu bëggee xëy ni loolu lépp dañ koy fàtte loolu day tax dina difficile trop ci réew mi. ñetteelu point bi ñuy bi may daaneelee sama wax mooy li xew université sénégalaise surtout université Cheikh Anta foofu dégg ngeen ko fan yi ñu ni dañuy ubbi effectivement ubbi nañ campus fi ñuy jàngale maanaam salle de classe yeeg amphithéâtre yi fi nga xam ne foofu la étudiants yi di jàng mais fi ñu dëkk ubbi ko muy lu graaw parce que Sénégal loolu moom ñun ñëpp la concerné maanaam mi ngi mel ni bët bu tàmm gis lu lëndëm euh, salte day dem ba salte bi dootu ko déranger Sénégal depuis cinq ans juróomi at wala ak lu ko ëpp mën nañu dañoo tàmm gis loo xam ne daaw fi am ba lu ci bari fi ne dootuñu ji dañ ko miis mais li xew université lu garaaw la juróom-ñeenti weer ñu tëj ñu ko. jàngalewuñu te ñun ñëpp xamal na ni lii ay tappale la ay njuñ njaaj la yàq nañ fa naam mais lañ fa yàq ku nekk université koy waxal yàlla xam ni ak ajuma la woon le premier lundi le deux ba mën nañu reprendre suñu activité jàngale parce que yàqu ñu fa benn amphithéâtre bu à part chapiteau ba salle de classe ña nga fa woon toj nañu bureau bu leen seetaanee vidéo yi sax am bu ñuy wax naan xool leen bureau Malick Diagne bi ñu ko def sama bureau bii lañ doon mais man sama bureau ba samedi ba dem naa fa lundi ba commencé naa fa liggéey huit heures lañ tojan rek sama rideau laa doon kii di ko ne sama liggéey te lu ci majoritairement lu ci bari maa na def noonu ba tax na li liñ fa waxan yëpp ñoo ngi def a yàq ya mais yàq ya teewuñu woon a jàng ñu tëj ñu depuis lors pendant neuf mois xëy ni dañuy ubbi yéen ñi jàngeen université xam ngeen la fa wax xam ngeen ni mënul nekk